baalu leen xaq baal leen xaq ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñaan yàlla weer wu tedd bi ñu dugg yàlla bu mu nekk sunu mujjanteelu weer luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu guddi gi nii waajal yàlla na ci jaam ak salaam luñ fa jaamu te yàlla tax yiw bu fa rot yàlla na tasaaroo ci réew mi yëpp ne ko Seydi Hadji Malick Sy waxoon ala azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraami udullu waaw moom teel naa teel naa waaw xam na ne gàmmu lu war la waaye nag nee na ko def ci anam bi gën buñ ci rax dara xaraam te ñu fegu noonu la ñuy gàmmoo wa ala azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun ah tiktok wuu tiktok bëgguma ci bokk ran boobu moom doy na quoi tiktok moom li yàlla xam doy na euh, youtube bi sax laa gën a ñeme ko toog tiktok yàlla xam na ko donte nag ba tey bu la ala azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun xaraami udullu ñi bëri ñu koy teg ci bidaa la béyk maa aleykum na waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilah li lay wan ne la parce que dañuy yaakaar ne bu fa góor jigéen jaxasoo ci biir kër yi dañ fay def naka sadul noonu te loolu fépp la maaka yaa des am na ñoo xam ne dinañ dem màkk ba ñëw xëy na peut-être dinañ dina aji waaye lu ci bëri lieu de rendez la ci ñoom seen ngëm moo toll foofu man nga gàmm ji bay ñëw te luy niroog xaraam doo ko jege man nga gàmm ji ba ñëw tamit luy niroog tiyaaba doo ko def loolu moom ci nit ñi la kenn mun ci dara mais El Hadj Malick moom nee na na ngeen ko màggal te bu leen ci taabal dara lu xaraam boole ceeg fegu ndax noonu la ko yàlla bëggee. alayna alaykum salam rahmatullah bu ko defé yalla ñu fa yalla yobbu jàmm ak salam fu way man ti tok timit diko def ta yalla rek tax yalla na bindal dafa la ci njort bu gëna kawé sax sax njort ndax yalla man na faj aajo te amul ben aajo bu muy faj nak te jaaraloo ko ci rasulullah ma khalaqar rahmanu min khalqi wala bok ma khalaqar rahman shay'an bin xalqi siwal siwal mahmoud wa huwal habib waaw loolu la Seydi Hadj Maag si wax yàlla narul woon wala boog narul woon wala boog du ko woon def du woon sàkk dara dara dara mu jege ci moom yàlla lu dul woon nag mbind gi mu bind rasulullah sallallahu alayhi ca des nag ci mbindefam yëpp bu weesoo rasulullah leneen lu ngeen fi gis muy bind rek yalla doko def ngeen magale ko rasulullah wa awjada jada khalqi li ta'zimihi wa kon koy weddi gamu dego wallahi dego waaw rasulullah mo ñor yalla yalla bind ko leneen lu meunti bind ngir magal rasulullah la ndax ñu li ni def lepp ñu ngi magal rasulullah di nga julli n'est-ce pas ku njëkk julli yenente bi ku fi njëkk jang fatiha ku fi jublu penku ku fi ku fi ku fi ku fi ah ñi ma ngaa wax ashadu an laa ilaha illa wa ashadu anna boo koy def yàlla di rëq si ndig waaw mooy la paa boo waxoon euh, xaw ma nan nan Baye Fall defe naa Baye Baara Baye nee na ku ci bañ El Hadj Malick ci réew mi boo ti ba ci faate bul te bul jàng Malick yow mi diin nee na boo ko jàngul doo am julli te yàlla dina rëq si ndig mu neex mu naqari Maliki moom neex Maliki naqari Maliki moom la jàkk yi xëye ma lu jeex na bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd ci rek waslu ci àq Euh, te ñaan yàlla mu nangul ñu ñu ñëw tey ci tur bu mag tiitloo nañ ko ñëpp nag ragal na loon ko ñëpp ban bakku ndax ñàkk xam tey su ma gisoon fii jama mu wër ma ne beneen jamaa ngi ci kanam fale Assane Sow am na jama te yéenewu ma leen ko dama naa leen fii am na jaan wala am na gaynde ngeen ngeen bañ fa jaar soo fa jaaree for jamaa yi kii dafa lënkaloo ak nit onze lettres ñu ne bu dee góor di nga jëlee ci moom neuf bunt boo ci boolee ñaar yi muy onze jigéen kazalika onze boo jëlee euh, euh, ruux ak nafs mu jox la ko di ismulaay azam bu mag a mag a mag a mag a mag ci ismu yi euh, di jàpp six quarante quatre mais yoon bi ma ci indi tey mooy kër goo xam ne tojontey bopp noonoonte Banyante wuñu chaque jour ñu ngi convocation sur convocation police jabar jak borom kër ga doom yaak xalé ya, ya manam ño xam daal wuñu même fo xamné guerre civile waro na fa am walay wal azim boko défé defee jàmm ko manti def sa kër goko manti def jamm taxaw na da ngay xorom su bari bo mané am sax saako bi nga jënd saako bi bo ñëw nga ràcc ko nga ko xorom sa ngoy nga bind ko nii ni nga koy bind benn yoon nga koy bind ci xorom si benn yoon nga ko ciy bind nga dajalewaat xorom si yëpp mu dajaloo nga teg ko benn place nga zikar tur bi cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze aha mu ko xalaxu yasu aha mu ko xalaxu yasu cinq quatre-vingt-dix neuf cent cinq mille nga bàyyi sa ëllëg sa nga ñëwaat sa ëllëg sa nga ñëwaat ba muy onze jours nee naa leen ba tàyyi secret turu yàlla mi ngi ci xuruf yi mais nag gars yi dégguñu ma bi ma ko dalay wax léegi gars yi dégguñu ma wallaay kii amul ku koy liggéey onze jours te gisoo ci résultat c'est pas possible mënut a nekk onze xuruuf la boo ko defee noonu mooy onze xorom soosu tegal ci kër gi lu ñuy togg ñu di ko xorome ngeen xool kër googu nu muy mel xuloo jeex na fa histoire jeex na fa xorom soosu ku ci lekk laa la wax kër googu ba ilaa yomul xiyaamati laa la wax problème jeex na fa ñëpp juboo nekk benn te defe naa baax na ci borom kër yi. ndax léegi kër yi toj na ndax lan li salaay salaam wax rek dee leen nëbb seen fajub aajo ndax fu ngeen gis yokkute rek fu yokkute ñëwee ci comme mënti doon ci ñun rek noon benn wala ñaar wala ñetti noon yokku na xadis bu wér la ku yàlla yokk say xéewal say noon yokk mu mu ngoog jërëjëf Xasaw Sow leer na nañu leeral na ko mu ngi noonu waaw de leen nëbb projet yu ngeen mënti am ngeen bëgg mu réussir nëbb leen ko moom sotti moom kay ne nit ñi xëy gis rek waaye am naa lii fee am na lee fee dinaa def lii dinaa def lee ko xam foo jëm mu <laughs> kon boog bëri na ci kër yi léegi au lieu ngay dëkk ci woore woote réunion xamaa na duñ la faale wala am na ci koo xam ne sax yow borom kër gi sax faalewu la mën na koo wax lu mu dégg def ko rek nga teg xorom bi ci waañ bi rek bul wax kenn dara gis nga borom kër la muy régler këram du ko wax ndax borom kër warta doon brutal warta doon tamit kuy jaay affaire fii maa fi takk tubéy takkoo dara takkoo dara wallaay takkoo dara bu guddee da ngay taraxlaayu wala sax doo fanaanoo dara kon takkoo dara loo takk Hmm? bur bi dafa am jabar jabar ji yab ko lol mu su bokk avec gorom yeb tek len ci naaj bi dag bi diko xalbe ci ak mu nako ah, ci jublu mu nako sama jabar la yow na duma moromam mu nako lol kesse mu nako ah, mu nako ah, yewil nit ñi mu nako lutax mu nako ñi nga tek fi bi nga len convoquer da nga sol yeri nga gëna am tak say médaille yeb bur bi nako wa mu nako lutax loo la waye soxna si boy dem ci mom da nga taraxlaayu bu dee lo rek la len waaw donc borom kër war na fexe ba njabootam ñeme ko te duñ ko yab waaye borom kër goo xam ne boo duggee njaboot gi génn boo génnee njaboot gi dugg musiba naaru laay la xam ne waaw kay boo deewee ñu kontaan doole ci loolu ñoo xam ne yow yaa war a seen éducation te duñ la wax benn problème ndax ragal la nan ko seetaat baaxul de sala salam nee na képp ko yàlla may ñaari doom yu jigéen ba ci ñett nga yeer leen ba ban majeur ba am jëkkër sëyi te musuñu la ragal sa aljana taxawna na ben waji mom ji moom daf ne eh, Sénégal mom jarul sonn da ngay da ngay tak jabar da fexé ba am ci ñetti jigen ak ñaar ñu goor nee na loolu doy mission pour dem aljana waaw parce que sañoo brutaliser gis nga li ñu wax tuba bi ñu nane tuba bi non non lool moy dëgg xalé kën du ko du ndax yow mi wara yar ci yow lay roy léegi boo dee dóore moom fu mu génn dee dóore boo dee saaga fu mu génn day saaga rawatina ak nag ñu ni wax wujji peccar gi ak <laughs> njëkke yeeg ci biir kër gi goro yi am na sëy yu bëri yu tas yoo xam ne goro yee koy tas boo ko defee nguut xorom su bëri man nag du dox ci bidaa de du ma wax saf cin xorom laay wax xorom su bëree bëree bëri boo ci mënee am saak bu mag bi baax na boo ci mënee am mbuus bi baax na moom daal fexeel ba ràcc ko bind kok ak sa baaraam sa baaraam nga koy bindee sa baaraam nga koy bindee boo ñëwee ci saat bale nga yaatal ko def ci cinq mille cinq cent quatre vingt quinze cinq mille neuf cent quatre vingt quinze muy adadu ah ñaata ñaata mu jiibu la mos ngeen ko tese kii lim bi mos ko seet ñun ñun yéen ah. non non non diviser leen ko par cinquante cinq ngeen xool. cent neuf la cent neuf cinquante cinq xam ngeen cent neuf mooy lan mooy xàqan du sa du cent neuf jeex na xàqan dëgg wér péng looj cinquante cinq fois cent neuf égale cinq mille neuf cent quatre vingt quinze mu ma wax ma xàqu de xàqan laa wax wala a xàqu xàqan laa wax asanso ne a xàqu ñaar yëpp benn la ndax alif alif tax kon amul lu ko gën a gaaw ci nangu <laughs> eh, eh, nu ko yàlla waxati eh, wa iza saalaka ibadi anni fa inni xaribu uji ujibu may lan ku ma woo mu wuyu la mooy mujibu ujibu daa iza daa nii waaye am na condition fal yasa lii ba pare nan man wuyul man yàlla nangul ma ba pare ngeen doog maa ñaan ma may waaye doo nekk ci la neex ba pare naan yàlla a du sotti de boo ko defee nga ràcc ko bind ci li cinq mille neuf cent quatre nga jaxasawaat xorom sa si yëpp mu jaxasoo nekk benn ba delawaat ko ci saag bi sax bu la neexe nga teg ko benn place moo xam guddi wala bëccëg foo amee jot ñëwal jàng ci xorom si al ahamu saqaku xalawu yasu cinq quatre-vingt-dix neuf cent cinq mille bëriwul nga ëf ci xorom si dem sa yoon ba mu mat un jour jëlal xorom soosu teg ci waañ bi bul wax kenn dara koy togg ko ne rek ña ci cof def ci ñam gi ngeen lekk ngeen xool dootoo àtte xanaa euh, dégloo ma dara dégloo ma kay soo ma déglu woon di nga xam ne li dong la ñuy bind sëy loolu de laa wax lii kese laa wax ne moom ngay bind ci xorom si li si liggéey la dégg nga ma léegi wala yaa ngi may suivre da ngay jël xorom su bëri déglu ma ñëwaat parce que répétition bi day xaw a metti waaw da nga defal ndànk jëlal rek damaa bëgg mu leer parce que bëgguma bëggumaa jox luy lor ma rek ma ñëw kay maa ñëw bin may jàngal ut xam-xam man bin ma koy jàngal dana ma bu sa sëriñ di wax fekk noppiwul bul wax ndax doo ci am xam-xam man noonu lan ma jàngale fekk mi ngi wax noppil melal ni ko xamul dara ñi xam na li may wax waaw xorom su bëri ngay ut nga ràcc xorom si tasaare ko mu wesaaroo nga jël sa baaraam bind ci lii benn yoon ci xorom si benn yoon ci xorom si nga yaatal sadde bi def ci li lim bi ci biir xorom si jeexna lo rek ngay bind nga jaxase xorom si dalawat ko sax ci sag bu la nexe nga tek sag jour nga liggey tour bi ahamu sakoko khalu yasu 5995 bu muy 11 jour li tarjuman la no do boko xamanteni do mako laaj sey am det lo rek la boko defé 15 jours à 11 jours 11 jours 11 maa ngi bëgg a pété bu sax ndax question yi onze jours nga koy liggéey nga jol xorom si teg ci waañ ba loolu lépp lu ñuy togg lay am xorom ñu cof ci def ca cin la ku ci lekk wallaay di nga jub sa morom bu ne woon guerre day am guerre mondiale nga fexe ba fa xorom say jege ñëpp di ko lekk nga def ko fa guerre bal du ku la neex képp ku mënti ñëw ne la sama kër sama njaboot jubóogul cofal ci xorom si jox ko na ko nan koy toggawaale sëriñ dafa war a am gàllaaj yooyu toogaale da koy préparé teg nee ku la mënti te bari na ci dëkk bi léegi waaw sama njaboot gi danaa tasaaroo dañuy tojante bopp bul bind saar bul bind dara ca fa ca jox ko na ko demal jaxase ko sa xoromu kër nga teg foofu mais benn comp la ci yóbbu na ko jaxase xoromam mu teg noonu ci waañ bi bu mu wax kenn dara ñu ci togg ñu ci lekk ñu xool kër goo koy jàmm rek <laughs> laa yemul léegi cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze yooyu mi ngi nii amul tur yalla bu ko gëna makki mag ci tur yi nag muy leer mo nek ni ndax moy hurufu abajade ba mat sëkk 28 huruf xuruf japp 5995 mo ngi ni legi <laughs> ki dang koy bind 7 fois mom tur bi fi la yam nga bind ko 7 fois mom am bind la sey yaa may deug nga bind ko 7 fois fi la yam ki sin so wala bi moy sin toy bu ngeen xolé lettre yep ngi fi 28 lettre yep ngi fi nga ñew nak ci nday gi fataha nga bindu ko ñett yoon surtout ikhlas ñett yoon falah ak naasi ñett yoon qala musa maa ji itum ba mu jeex min ngeen ko 55 wa alqi ma fi yaminika talqaf ba ci wala yuflihu yuflihu sahiru haythu ata nga bindu ko 13 nga bind khatim bi dolli ko ci sangool benn yoon nga xool benn yoon laax benn yoon bu la firaaw na njabaroon sax mu denc saa si bu la na ci boppam njabaroon boo ko sangoo mu denc saa si koo ci jox mu sangu lu nekkoon ci moom ci njabar dañ ne kenn dootu ko jàpp ci njabar ba keroog muy faatu waxuma sax jàpp waaye ku ko nar a dugal ci njabar dem bar sax bu non côté njibar la wax ñëwaguma ci rabbe rabben benn fas ko benen fan la mais njibar ga njibar sey mi amna amna am duma duma ko mu dem nonu nako nako galgal na allah lam Amna amna fi du fi jeex wa mom la wax legi ku sey ku sey ku sey ku sey ku say taraanga yokk sey non beuri waaw jeexna tak ba malako wax barki dem la mel maa mujjewo di mel nonu comme tek tek déedéet surtout marché boo boo boo amee ñàkkee boo amee sens dëgg mooy sa bakkan demul waaw mooy sa bakkan demul mais boo ñàkkee sens sa bakkan day dem dañ lay dégager teg keneen waaw moo tax li seen Cheikh waxoon bul bul mës a wax mukk ne mësuma rey nit fekk teewoo ëllëg ci kanamu yàlla waaw ndax di nga nit ki mu mu dee sax mu jaara fa dee di nga xool nit bët boo xam ne tooke gi mën na ko topp ba mu dee donc yow ra yow waaye am nga ci part de responsabilité ndax wa maa kaana li nafsin an tamuuta illaa bi iznillaahi waaye nag am nga ci part de responsabilité waaw te xeexante boobu mi ngi fi am pagaay ci ñun julit ni te waru woon a nekk ci ñun suñ déggoon salallaahu alayhi wa sallam dëgg kii ñuy waajal guddeem nii naan moom la ñuy màggal dëgg Sénégal bii riir dama leen ne ba léegi déggu leen ko ba léegi déggu leen ko parce que yow nga ne julit nga salaay salaam mooy sa référence yow tey Alioune Diop boo doxoon tey ba juum sax faqasalu rek daal sama kaw yuuxu laa la njëkk a def dama jéem a seet na gaañu nga de dama luy yuuxu yow looy def nii gis nga ni nga dal sama kaw te xamoo lu xew amaana dafa am malaise dal sa kaw amaana dafa faqasalu dal sa kaw mais da nga ko njëkk a yuuxu te bu la xeex jolli. waaw. Ah. Ah. waaw.

bam ko xoolee rek mu mu ree mu ne hmm. sa gaay ma lan mooy sa gaay mu ñu waaw waaw mais loolu rasulullah. gis nga wallahi wala azim nee naa leen chaque année ñu gàmm dëgg la de taalibi cheikh la chaque année ñu buñ rasulullah senagal jat wallahi wala azim buñ ko royoon dong can jikkoom jikkoom ñi ñuy jàngal chaque année di ko jàngale ci daayira yi dama cee wax ba léegi de mujj gi sax dama noon ma daayira parce que c'est pas la peine jaratu noono non duma mission la mais buñ ko doon noon moom laa la wax Sénégal day jag ndax kenn dootul yéene sa moroom lu bon kenn dootul soxore sa moroom lu waay am wala nga gis ko ci sa moroom lu ñaaw nga nëbbal ko ko ñun bala ñoo kontaan yàkkamte noo gis lu ñaaw ci yaw ba moo tax Tiwaawan ren dañoo jël comme thème wa quulu linnaasi xusna ma ne ko yàlla nañ ko dégg waaw yàlla ko dégg loolu am solo ndax salaay salaam nee na képp ku suturaal jullit benn ayib yàlla suturaal la sa géeru dund weerante bu métti bi c'est parce que dañu suturaalante mais bu doon suturaalante rek dootu fi dégg TikTok day fay wala boog leneen moo ciy nekk mais ñun ñu ngi yàkkamte luñ la xamal ba toj ko wesaare ko yàq sa der dootoo jar dërëm te yëgoo ne li waa ji mel moo neex yàlla mais looloo neex yàlla gis nga màndikat bii ngay gis ni di ko xas moo neex yàlla moo tax yàlla bàyyi ko fi bu naqare woon yàlla da ko fiy jëlee mais ni mu mel moo neex yàlla pour yàlla woon la yow li nekk ci sàngara danga nga war a jàngat yow li nekk ci sàngara mais bul ko xas imaam ba dana ko doo wax ci màndikat bi mu leen wax ma ñu ne ko lu tax mu leen su ma leen xasee ëllëg man ma màndi ñoom ñu nekk imaam lu may wax lan laay wax waxuma ci yàlla la neex bàyyi leen foofu kon nit ki nu mu mënti mel xamal na yàlla la neex nit boo xas rek yëgal na yàlla nga xas xam nga ndax yëg nañ ko <coughs> mbookaay te ab xaaj la xas ah, xaj la xas xasul nit de ñun nag nit la ñuy xas suba ngoon nit waxuma sa julit mais nit la ñuy xas suba ngoon di yàq deram suba ngoon di la tegi tuuma yoo xam ne dara ju dëgg waxatuma sax nit mais léegi ñu ngi ci sëriñ si dama jaar marché <laughs> Aliou marché laa njëkk a def <laughs> marché doon ñawee <laughs> mais moo nekk fépp moo nekk fépp moo nekk fépp mo nek ci rew mi yep legi motax tax len julit ñi amna yenen mission yu dul li bida lii du bida non non nañ jéem fexé ba dindi fi jikko yi mo pu solo mais li li rek li li la yenen wax la koku benen affaire la lolu mais ma la <laughs> limi nek yep mané suko wax li fi nek yep mané suko wax motax bo démé ci ca aaya ya yàlla da lay wax ne bala ngay taxaw de julli <laughs> vérifier sa bop ba pare. waaw laysal birru an tuwallu qibalal walaakinnal birru lu mu jiital ah lan mooy ngëm yàlla ah man amana billahi wal malaikati wal kutubi ak lanati war rusuli wa atal maala ala zawil wal yatama wal masakini wabni sabili wa fi riqabi ak lanati wa waaw aha iqami salat dogu a mo tan doon chrétien joxom bi dem bo génnee asak mu nga ko jox gis nga qualité yàlla ya jiital avant ngay jàpp di julli nee na la vérifier jikko yi ndax mi ngi ci yow ba paré waaw bala ngay julli <laughs> na nga gëm d'abord parce que tay ma ngi dégg ben way jo xamné dañ ko tek fo xamné neeku fa parce que mom dafa japp né mom il est le plus sérieux du Sénégal nee mom gëm na yalla mais gëmul yonent waaw ah déggu leen ko mo euh, waa ji sant Guèye la bisu la damay fàtte tur bi dama ko bañ mënu maa jàpp tur bi Modou Guèye ba pare beneen oustaz ñëw di ko défendre ah oustaz xale yi xuna parce que foofu laa ko mën a teg jeex na di ko défendre beneen oustaz waaw di ko Eh, mi ngi noonu. waaw gëm na yàlla mais gëmul yonent parce que moom dafa jàpp na xëy na fa yàlla toll fa la yonent toll du déedéet déedéet <laughs> déedéet waaw waaye boobu eh, saa jóg défendre daa leen bu leen yàq bu leen yàq wax jàmbur wax na dëgg yonent kenn du ko gëm <laughs> dama ne la gis nga li sallallahu alayhi wasallam wax rek ci nekk gis nga bo toñale yalla ben walli yu yalla attaqué na la guerre guerre bi du ay dalay dóor ni da dalay wer ba ñepp xam yow ni nga mel ci mom ci la bok jeexna bo boo dara rek yalla déclarer na la guerre man ada man ada zimmiyat waxul julit chrétien mu ne chrétien nga ko guerre taxit faaw mu faaw mu waaw amana rasul ma unzila ilayhi min wal wal malaikati waaw kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi nga ne gëmoo ko nga seppi rasulaat ak fële yooyu nag moo war a nekk suñu mission ñun jullit yi yu mel noonu ñu dénoncé ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni mais man su ma la gëmul du ma la roy xamoo Assane Somé su ma koy topp mu nar a nekk sama sëriñ c'est parce que dama gis ci moom qualité yu baax waa kay ma gëm qualité yooyu topp ko mais nag du yàgg ba ma teg ko ci place yàlla xam nga lu ma bëgg am fa yàlla pour mën a àgg ci yàlla loolu la ni doy sëriñ ñëw sëriñ yëpp loolu la am ci yàlla pour mën a àgg ci yàlla ayyuhum aqrabu léegi ñu dellu siwaat ci li résumé te ñëw dellu ndax daj du ci ñàkk ñu ñu sërxal ko ci ndax ah, fàttali la defe naa sax ci man sama gis-gis moo ëpp doole sax lii waaw moo ëpp doole lii mais lii tamit baax na ndax fitna baaxul waaw waaw waaw non ah kooku kooku kooku kooku xam nga li erreur am moom erreur bi mu njëkk a def mooy fi ñu ko laaj ak fa mu tontu moo ko laaj bi wax na tonto ci imam bi mais yoonu rasulullah nekku ci waaw moo taxit doom na loo ci gis yàlla nga koy dama ni gis nga salaahu alayhi wa salaam non mënut a wér waxuma sax salaahu alayhi wa salaam mais jullit jullit bu gëm yàlla ragal ko yàq deram gis ko loo ko bala ngay génn àdduna ko kenn du ci dañuy gën a reculer au contraire dañuy gën a reculer kenn du ci avancer donc respect dafa baax ci nit ataajabiina min amrillahi ah rahmatullahi aleykum ahlal bayt loolu yàlla wax ndax da ngeen di yéemu man ataaja bii na man yàlla ndax da ngeen di yéemu ci li may defal ahlu bayt rasulullah man ma wàccee ci ñoom yërmande ak barke waaw beneen ba mu ne may innamaa yuridullahu an yu jeex na an humu rijza jeex na jeex na kon ñooñu yow màggalal rek ndax yàlla njëkk a màggal ahla bayti rasulullah màggalal jeex na màggalal rasulullah yàlla màggal la c'est ndax ëllëg tamit nag wallaay loo ko xeep xeep xeeb ëllëg di nga ko soxla bu ñëpp dekkee nga xam ne mooy waa ji donc kooku dañ ko war a roy jiital tolérance suñu biir tolérance mën na muñ mën a jéggale nangu gëm yi ndogal yi lu ñëw nga gëm ko xam ne yàlla ci yàlla la jógee amul keneen ku fi mën a dogal ku dul yàlla amut walillahi mulku samawaati wala ardi ku mu neex yàlla laa wax mooy moom lay jox nguur ku mu naqari yàlla du la jox nguur looloo fi nekk kenn mënu fee pexe pexe muus moccat ba jël fi nguur te yàlla jox la ko kon nan ji jiital loolu ji jiital yàlla waaye bu nit ñi taxawee nag ba naan yàlla falatul yéenay fal koku mom benen affaire la liñ wara war a Sénégal dafa bëri té ño xamné ay référence lañ waroon doon du dem du dem kon ki day dindi fitna day dindi kër gu jaxaso kër gu tassaro fo xamné xulo xex na fa histoire bëri na fa ngay jënd xorom su bëri rek racc ko bind ci tour bi ben yon yata sàdd bi gis nga ki moy adam ak Awa lii nii bi mooy Adama ak Awa quarant 45 la wa 15 boo ko boolee muy 60 mooy sàdd bi 60 boobu moom la yàlla tëxëñ ci àdduna moo tax dundu Adama ak Awa ñu limité ko ci temps loolu moo ko indi xam naa temps bi du ko maye tey mais beneen yoon mën nañ ci dugg wax la li waral li waral montre am ñu mesurer temps bi te ki ko njëkk a créé la de montre jullit ko njëkk defar. waaw jullit ko njëkk a defar muy Adama ak Awa di 60 mu lay misaalal tamit ba tey bàmmeel mooy sa kër gu mujj mi ngi nii di lay misaatal ba tey sa biir li ci dugg na set na lew ndax ëllëg balaa bàmmeel bi funki ñu fekk fa su lew donc moom ngay yaatal def ci mille cent 5995 nga jaxasewaat xorom si lem ko teg chaque jour nga liggéey ci tur bi 5000 attention garaawul garaawul chaque jour nga liggéey ci tur bi cinq mille neuf cent quatre vingt quinze ba muy onze jours bu la neexee nag nga jël guddi bu la neexee nga jël bëccëg ça yow ci sa temps rek bu fekkee guddi gi ngay am jot baax na bu dee bëccëg ngay am jot baax na nga liggéey ko onze jours boo paree nga jël xorom soosu bu fekkee ne amul kenn tegal noonu à côté ku ñëw ne la sama njaboot dina am problème jubóowuñu nga tibb ci xorom si jox ko mu dem jaxase ko xorom mu këram ñu di ko togg di ko lekk. xorom xorom xorom lay dox ci xorom lay dox lu dox ci suukar xorom bii pour dindi liggéey la toj liggéey bisimilah azam bi gën a mag ci tur yi tey nag moom defe naa ne xaw ma sax lu ma dal tey dama ragal ne gars yi dan ma dan maa njibar avant may no non dama ragal gars yi dan maa njibar tey Aline Diop amoo foo jaar non dafa am foo jaar man tey yow mi ñàkkul tey loo def waaw ku mu neex nga jàpp ko mbokkal ko dinaa ci man nag du ma ko jàngale am na am na beneen yoon boo xam ne tur bi la ci ki bëgg a gaaw a ci yàlla aajam faju zaahirana baatina nekk wala yu neex na naqari mais boobu wax dëgg yàlla euh, du tegu du tegu ci tableau bi du tegu ci tableau bi tomb bi rek laa doon indi ixlaas tomb bi laa doon indi tomb ixlaas bi waaw xam dëgg fii la ñuy toog duñ laal beneen tur ndax tour bi ëmb na lepp mais dang koy bind ni mako ko ni nga koy bind juroom ñaari yoon nga bind fatihatul kitab ñett yoon surtout ikhlas muy qul wala ahad ba mu jeex ñett yoon xulonal bi falaq ñett yoon qul sa binnaas ñett yoon qala musa ma ji'tum bihi sayyul inna la sa inna allaha la yuslihu amalul musidin 55 adadu mujibu wa alqima fi yaminaka talqaf ma sana'u innama sanao kaydu wala yufrifu saahiru xaysu mu ngoog treize nga teg ci xaatim bi def ko saafara sangul sangal sa njaboot ndax gis nga doom dina jàng ba war a am bac problème taxaw ñu naan rab ak ginne fekk ka kalaal mi ngi lay gis suba ngoon bëggul sa doom réussir surtout ñu nekk ci kër yi wujje dañ ci def attention boo para wul sa njaboot ding ko reccu bala nga ci jëg di def ay mil mil mil mil yu bari bala sa caa nga jël li neexal ci ben oustaz wala soko ko bind nga bindul ko sa bop sangu ci sang sa njabot na amna ño xamne suñu la mënta laal ci njabot gi la ni jaar donc sangu même njabot gi nun man ci tollu sangu len ci njibar gu nekkon ci ñom chat lamagn bu nekkon ci ñom day dañ kenen dot la leen laalati ilaa yomul ba karok àdduna tukki ku len njabalati mu delu ci mom ci saa na